ci taalibe yi fi nekk yépp di ndokkeel bu baax nag sunu way jur sëriñ Baye Gueye Sylla ci liggéey bu am solo bii nga xam ne yàgg na koo def te defati ko waaye xëy na sama kàddu yi sax daanaka mën naa ne ñi ma jiitu rawatina sëñ Mbàkke Lo waxaaleel na ma lu bare bare bare bari te mooy li mu daaneele ay kàddoom rek loolu mooy li ëpp solo mooy bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne ñoo mel ne sëriñ Mbaye Guèye Sylla ndax liggéey bi jàmbaar la ci lool waaye nag jànkoonte na ceeg difficulté yoo xam ne it nag dëgg-dëgg mënoon naa bañ a demee noonu kon xëy na xam-xam soxla na ku ko taxawu boroom xam-xam yi soxla nañ ñu leen taxawu te lool it euh, ni nga xam ne noonu lañu xamee yoonu sëriñ bi ci social ak jàppalante jàpp naa ne loolu war na cee war na cee gën a am laaj wu am solo daal ci pexe ba bindkat yi ndax li muy def euh, yombut ndax euh, day liggéeyal sëriñ bi ci noo xam ne dafa bokk ci euh, man nga ne jéego yi ëpp solo ci universaliser le message de Cheikh Ahmadou Bamba ndax sëriñ bi moom mel na ne li gën a nekk jafe-jafe ak ñu ñu ñu ci ñu ci nga xam ne mënuñoo xam lu bari ci moom mooy li tubaab naan barrière linguistique masala sëñ bi ci arab la doon bind ñi njëkk a bind ci ñoom ci moom it lañ bind ci arab lañ ko bind muy cheikh Mouhamadul Bashir cheikh Mouhamadul Amin al Alawi ak ñamel na ñoom ñëpp kon loolu koo xam ne daf leen koy jegeel ba noppi di ko defee ci anam goo xam ne day fexe ba fenn fu ne mu jële ca muy sëñ musaaka muy ci archive yi muy ci sëñ Modou Lamine ak cheikh Mouhamadul Bashir loolu jàpp naa ne ku ñu ko yombale leen noonu xëy na bu fekkente ne bi def na ci lim boo xam ne it lim bu néew la kon li ci leneen li nga xam ne moom lañ ko mën a jàppale yéen mooy kenn ku ne rek nga xam ne lu mu gàtt gàtt doonte jënd livre bi la sax loolu jàpp naa ne bokk na ci participation yi nga xam ne mën naa jàppale liggéey bi ba yeneen ak yeneen génn ndax denc na yu bari yoo xam ne téere yu noppi la waaye ñàkk koo mën a móol moo tax ba tey génn gut kon loolu rek laa doon euh, sànni samay kàddu Seydina Omar te bu baax tamit éditeur bi nga xam ne mooy Badara ci liggéey bi sonal naa ko ci lool moom kiman la waaye maa ngi koy jéggalu bu baax Baye Mbaye moo bari moo bari moo bari kii moo moo moo moo sérieux ci liggéey bi rek caaxaanu ci ndax liggéeyu sëñ Touba la te sëñ Abdou Lahad ne woon na sëñ Touba li mbirum sëñ Touba wala liggéeyal sëñ Touba suñu bakk bakkan lañ ciy gar xam naa nag loolu rek moo ko moo ko yóbbee woon loolu waaye noo ngi lay sant bu baax yow ci sa taxawaay ak mbokk yi nga xam ne jiitu nañ ma ci kàddu yi yëpp sëñ Seydina Omar sëñ Moustapha Diop ak mbokk yëpp salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Abdoul Khadir